journée bi tey c'est une journée de lancement des des des cours qu'on a kon a qu'on a voulu offrir à la population de la Médina donc cours yi c'est des cours d'anglais et des cours d'informatique donc cours anglais yi moo commencé tey euh, les élèves sont dans la classe euh, donc li ñu bëggoon def rek mooy permettre à ces jeunes la de pouvoir avoir euh, benn outil boo xam ne en plus des cours yi ñuy def régulièrement école euh, anglais yi ñu mun a am benn renfort renforcement fii au niveau personnel tam ñu mën a yokk seen confiance pour ñu mën a euh, exceller si si anglais bi parce que comme on le sait l'anglais est devenu incontournable euh, ku làkkul anglais doo dem fu sori doo doo doo voyager fu sori wala boo demee sax di nga ay jafe-jafe donc raison pour laquelle ñu indi lii teg ko pour jeunesse bi gratuitement bien entendu donc ça va tourner autour de deux mois il y a des sessions le matin 10 heures midi il de personnes parce que y a yoo xam ne ñu ngi si seen ay mbiru bopp Donc on veut aussi les donner l'opportunité. Donc c'est ouvert à tout le monde. Il y a différents niveaux yoo xam ne moom la ñuy jàngale initiate initiation anglais y a des niveaux commerciaux y a des niveaux yoo xam ne ñu ngi koy offrir fii donc euh, cours informatique yi aussi c'est la même chose donc on va faire des cours euh, de base euh, pour jàng utilisation machine et tout dinañ def tamit niveau boo xam ne ça va être du du du du du du coding am na ay ay modules yoo xam ne c'est spécialisé et ciblé par exemple au nouveau bachelier wala aux, aux entrepreneurs. Donc tout ça, on est en train de mettre ça en place pour pouvoir, sur ces deux prochains mois, euh, créer benn curiosité créer benn engagement ci xale yi comme ça ñu mën a xam ni c'est des c'est des c'est des c'est des modules euh, incontournables ci jamono yu ñu toll nii donc loolu moo ñuy mooy motifu ñu nekk fii tey suba ak xale yi pour mën a lancer euh, cours yooyu bien entendu comme ni ma ko waxee sànq ce sera des clubs club anglais lay nekk club français pas simplement cours de vacances donc on va travailler sur la sur la continuité ak ñoom pour pouvoir les les accompagner pour pouvoir créer aussi d'autres euh, d'autres euh, d'autres centres d'intérêt si différentes matières yi pour le moment classe initiative bi je pense que dañu nekk si société boo xam ne euh, éducation elle est elle est primordiale boo amee sa jeunesse boo xam ne la moyenne d'âge est de dix-huit dix-neuf ans ñu ñu toll foo xam ne war nañ mën a yokk seen ay compétences nga jàng école nga bañ jàng école encore une fois parce que je di que la cible est tout le monde euh, yokk compétence boobu day laaj ñun tam ñu ñu dugal suñu loxo si si si expérience bi ñu am si peut-être moyens yi ñu am ñu mën si dugal suñu loxo pour euh, jàppale jàppale xale yi donc loolu day motiver classe pour ñu mën a euh, am impact boobu si population bi parce que y a différentes façons de pouvoir avoir un impact sur les populations l'éducation comme je l'ai dit population bi c'est surtout des jeunes qu'on puisse commencer par ces ces cours académiques en attendant de réfléchir à d'autres opportunités pour ñi nga xam ne peut-être ñi ngi intéressé aussi leneen euh, la première activité qu'on a eu à c'était lors de la veille de la Tabaski donc on a fait ce qu'on appelle du vide dressing euh, maanaam tabaski bee ngi ñëw am na ñoo xam ne seen loxo jotul ginnaaw am na ñoo xam ne ñu sax lu ñuy sol si tabaski bi donc on a fait une collecte de tenues euh, on a collecté à peu près 300 tenues yoo xam ne dañ ko redistribuer waat à travers les populations de la Médina te li ma gën a neex si loolu mooy dafa am double impact donc benn impact bi mooy ki nga xam ne dafa jël yërëm joxe ko donc am na benn conscience bu ñuy éveiller si moom esprit de solidarité esprit de partage ki nga xam ne jot na yëre bi te xam ne ni benn frère am benn sœur am bu nekk biir Médina moo ko jox donc loolu c'est quelque chose boo xam ne dama siy remercier encore une fois tous qui ont qui ont participé euh, sama collègues yi nga xam ne tamit so so sonn nañ si trop donc ça c' était la première activité deuxième activité bi mooy euh, cours yi ñuy def ni cour anglais yi ak cour français yi euh, cour informatique yi pardon donc cours informatique on va faire ça à Biram Sassoum euh, matin et soir bien bien entendu ensuite on a d' autres programmes yoo xam ne bëgg nañ ko dérouler par rapport ak yeneen commission yi la commission environnement la commission commission sport surtout vacances lañ nekk je pense que c' le moment de pouvoir faire d' autres impact bi ak motivation bi du leneen lu dul euh, comme je le disais tout à changer la routine de ces jeunes là parce que boo nekkee si dara chaque jour chaque jour chaque jour tu te dis que dama bëgg a tekki si dara mais boo xoolee ci fais même mêmes choses matin et soir donc ci peux pas avoir des résultats différents donc ñun dañuy ñëw indi loo xam ne day génnee booy ci seen routine boobu yokk leen confiance comme ni ma koy waxee sànq. permettre leen ñuy rêver c'est très important que ces jeunes-là puissent rêver et qu'ils puissent voir que c'est possible à travers ñun ñuy nekk si commission yi à travers ñun ñuy nekk si fondation bi qu'ils puissent rêver qu'ils puissent voir que c'est possible sinon bu ñu amul rêve rek ils vont toujours se réveiller dans le passé quand tu te réveilles dans le passé tu fais toujours les choses que tu faisais hier tu vas les faire demain et après-demain donc ñun suñu mission instant bi loolu ñu bëgg a déclencher ni jàng anglais wala jàng informatique mais c'est en tant que personne redonner la confiance à ces jeunes. Parce que comme je le disais, quand on a confiance, peux accomplir des merveilles. on, on, fait, on fait un appel parce que je pense que Medina, kese ne sommes pas nous. Nous ne sommes pas Donc, les loo xam ne Euh, c'est positif, ce sera pour la génération future, ce sera pour la Midna de demain. Donc l'appel, c'est, elle lancée à tout le monde, elle est lancée à toutes les associations, elle concerne tout le monde. à toutes les autorités, elle est lancée à, aux premiers de la commune, elle est lancée aux, aux ministres qui sont dans, dans, dans, cette commune, aux autorités. Nous, franchement, ils peuvent faire des différences. Parce que les mains toujours, moi, Nietzsche a trois ressources. yoo xam ne moo lay mën a permettre nga am impact nga def différence donc la première ressource c'est l'intelligence la deuxième ressource c'est le cœur xol bi nga am pour mën a def yenn yi la troisième ressource c'est la poche l'argent donc ñëpp am nañu xel ñëpp am nañu xol mais ñëpp mën nañu bañ a am xaalis boobu pour def ko mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus de différence fii ak fii donc c'est pas nécessairement ñaata la ñuy teg ci table bi ak ñaata la ñuy mais nit ñi bu ñu indiwee seen xam li ñuy booloo nekk benn li ñuy def si seen xol on peut faire de grosses différences donc xeeb bu ñu kenn donc j'ai fait cette métaphore juste pour dire que c'est possible que tout le monde puisse le faire c'est pas que j'ai pas des millions mënu def différence mais lii di jugee fii ak lii di jugee fii pour man ci nit moo gën a ëpp impact cent millions de fois donc je lance un appel à toutes les populations de la Médina à toutes les autorités à tout le monde aux enfants di leen encourager encore engagement bi c'est important on a besoin d'eux pour faire la différence de demain on peut pas on veut pas être gouverné demain par des personnes yoo xam ne ils sont incapables wala ils peuvent pas faire cette différence là donc c'est pour ça ñuy insister lii moo tax ma ne c'est c'est le problème de donc ni ñëpp ñëw jàpp si ku nekk bien entendu yaa ngi def sa cours de vacances fii yaa ngi def si lii yaa ngi def laa mais man moom personnellement lu ma yëg loo xam ne beneen association la damay ñëw jàpp si damay ñëw participer si parce que intérêt général bee ñu tax jóg